voilà ñu lay nuyu Anna di nuyu auditeurs yu Rewmi FM Dakar 97 point 5 euh, ci ganuk euh, bés bi tey jii ñu dalal Adama Mbengue nekk président bu ONG Action pour la pour les droits humains et l'amitié Adama Mbengue ñu ngi lay nuyu. di nuyu ñuy fàttali yow yaa jiite ONG euh, Action pour les droits humains et l'amitié di ADHA Sénégal fi ñu nii di traverse benn crise bu métti jëm ci wàllum. politique ak aussi si côté société bi euh, ñuy wax ni nag fi ñu toll nii ñu ngi jalgati ak euh, ak yelleefu doomu aadama yi ban analyse ngay def ci situation bi ak jalgati gi ñuy jalgati ak ak yelleef yi. Euh, d'abord ak ñuy permettre ñu présenter suñu condoléance maanaam suñu njàll si ñu nga xamante ñoom ñoo si jot génn àddina si manifestation yi ñu weesu. di ko jàll seen njaboot di ko ba jàll euh, Sénégal bi yëpp euh, bu ñuy wax si ak fu doomu aadama fii ci Sénégal de général générale dañ ñuy renvoyer d' abord si EPI renvoyer ñu si forum des ONG bu nga xamante ni moo laal ONG yëpp ñu ñëw si Afrique nekk si Afrique bu ñu defoon yàggul defoon ko Banjul foofu nag dañuy ñëw euh, jéem a nat lii di ak ak yelleefu doomu aadama ci réew bu nekk fii nag ah, am na. yenn pàcc yoo xamante ne am na ci ay avancé ak yu nga xamante ni am na ci ay recul si recul yooyu noonu gis nañ ni ay mbootaay yu bëri yoo xamante ni ah ñëw nañu laal euh, wax nguur bi pour ñu xoolaat seen taxawaay ci ñu nga xamante ni dañ leen di tëj ak tamit manifestation bu amee pour ñëwaat si manifestation yi euh, ñu nga xamante ni dañ leen di jàpp di leen brutaliser di leen dóor te vidéo yooyu yëpp def tour du monde yooyu daal moo tax euh, war nañu xoolaat saytuwaat bu baax li di ak yëreefu doomu aadama fii si réew mi rawatina euh, lu nga xamante ni mooy charte yu bëri yu nga xamante ni Sénégal daf ko signé ratifié voilà nguuru Sénégal moom nee na officiellement seize personnes ñoo ci faatu ngeen gis ni mbootaayu xeeti organisation des nations unies mi ngi exiger euh, ay euh, enquête maanaam Sénégal amal ay enquête indépendante pour ñu mën a situer responsabilité mais tamit ñi nga xam ni euh, ñu ngi doon toj di yàq di lakk kër jàmbur yi ci manifestation yi est-ce que jàpp nga ni lu ni mel lu normal la organisation des nations unies war na exiger état wu Sénégal ay enquête ci ci mbir mi. waaw war na exiger te bu ñu fekk si parce que bu ñu ñëwee si suñu communiqué ñun bu ñu mujjee def nga xamante ne ñu ko daté le 9 juin ñu waxoon ni que sénégal Sénégal ñooñu ko wax ni dañ ko invité moom pour mu euh, pour mu mun a créer benn benn commission bu nga xamante ni d'enquête bu nga xamante ni parul fenn maanaam bu indépendant bu impartial bu nga xamante ni dafay leeral lépp lu nga xamante ne moom mooy euh, sénégalais yu faatu ci manifestation yëpp yu jot a am waxuñu rek manifestation yi mais manifestation yeneen yëpp ba ci mois de mars bu we bee weesu woon euh, ak yeneen ak yeneen yu nga xamante ni gis nañ ci ay nit yu bëri yu faatu te yooyu noonu ba léegi nii waxuñu kan moo leen faat ak nan lañ leen faatee loolu moo tax ñu ne euh, war nañ créer cette commission la mais pas ñëw rek ne euh, tijji nañ benn information judiciaire loo xamante ni buñ ko waxee rek foofu lay mujjee. du ñu am benn leeral ci lu jëm ci loolu te comme lu ñuy wax rek gis nañ ni à travers les télé les médias côté ni ngeen ko rapporté ak ñeneen ñu nga xam te ñooñu bitim réew di circuler ay vidéo vidéo yu nga xamante ni ñu wane ay nit yu nga xamante ni yor nañu ay armes ñu wane ay décès ak ñeneen ak ñeneen vidéo yooyu noonu je pense que du taaral sax euh, lii di Sénégal moo tax war nañu très vite créer benn commission d'enquête bu indépendante bu impartial mu leeral lu nga xamante ni moom mooy ces décès là. Euh, voilà Adama Mbengue njiitu réew mi aussi war na wax ci euh, mun na war na wax ak askan wi mais juste après euh, le dialogue national donc ñu koy xaar ci fan yi euh, yéen en tant que kuréel goo xam ni yéen a ngi yëngatu ci wàllum àq ak yelleef lan ngeen di xaar ci ci discours njiitu réew mi. bon ci discours bi xam nga bon comme ñu ko waxee woon ci communiqué pour ñëwaat ci loolu rek euh, ñun lu ñu jàppee dialogue te dialogue bu ñu gën a euh, bëggu ñu am moom mooy dialogue bu nga xamante ni ñëpp lañ ci boole ak yëpp mais dialogue yooyu noonu ñu koy jiite moom mooy suñu autorité religieuse nga xamante ni ñëpp leen dégg. Mm-hmm. fu ñu waxee saafara nañ ay lu bëri te amul benn bruit amul benn benn benn personne wala deux personnes yi nga xamante dañ naan kii dafa far fii wala par parloo am na ci. muy les xalif généraux muy l'église euh, peut-être lu ñuy xaar si euh, pour répondre à cette question bi si euh, déclaration du président peut-être mu ñëw wax ni ah créé nañu lii di commission boobu noonu nga xamante ne d'enquête bi pour leeral bi pas tous les décès yi nga xamante ne am na loolu mooy un deuxièmement des sanctions dinañ ko dal dinañ ko teg si ñu nga xamante ni ñoo def non seulement ñoom ñoo yoroon ces armes là te waruñu ko yor te nekkuñu ci force de défense et de sécurité troisièmement mooy ñu nga xamante ni taal nañu ay amphithéâtre taal nañu ay <clears throat> ay këru jàmbur ñooy tamit teg nañ euh, loxo ci ñoom te teg nañ leen ay daan yi quatrièmement moom mooy euh, lu nga xamante ne moom mooy euh, ak ak yelleefu nit ñëpp sans distinction sans pour autant kii dafa far wala kii dafa far ñu ñëw respecté ko ñu bañ a ñëw jàpp kii wala téye kii ndaxte dafa far boor bi wala farul boor be persécution bu nga xamante ne moom moo am dañoo ñu dem rek bientôt le 18 juin ci journée mondiale des réfugiés donc persécution boobu noonu mu bañati amati yooyu daal ci tënk la xaar ci déclaration wu chef de l'État mhm. euh, déclaration boobu mu nekk benn message boo xamante ne bu d'apaisement lay doon voilà euh, beneen ponk bu am solo euh, Adama Mbengue di euh, ñu bëri ñu ngi jàpp ni dañuy jalgati ak ak yelleefu ki nga xamante ni moom mooy leaderu Pastef di Ousmane Sonko parce que dañu kaddee këram boobu ba léegi ñu bëri ci sénégalais yi jàpp ni soit dañ koy jël yóbbu ko kaso wala ñu bàyyi ko mu libre ci biir këram ak njabootam yow ban jàngat nga am si le fait que ñu daal di tëj lool noonu sax lañ ko mën a jàngatee tëj Ousmane Sonko. ko ci biir këram foofu la ca te kër góor gi euh, loo si xalaat. waaw xam nga euh, ñun on est di conseil sénégal de défenseurs des droits de l'homme mm-hmm. euh, boobu noonu comme am na si nu mu ko waxee bokkaale si ak yeneen kuréel bokkaale si dañoo wax ni benn amul fenn si charte ak ak bu nga xamante ni wax nañ ni yow war nañ ñëw soxna si Moro sa kër ñëw barricade sans motif sans rien war nañu leeral lu tax ñu def ko ak lan moo leen permettre ñu def ko bu fekkee nag y' a pas de motif valable bu nga xamante ne war nañ ñoo bari quartier mm-hmm. loolu noonu li ñu ciy wax moom mooy ñoo ñu falsa fañ faañe euh, ak ak yelleefu euh, leaderu opposition boobu noonu nga wax noonu Ousmane Sonko. mais tamit gis nañ ministre de la de la justice Ismaïla Madior am na réponse bi mu si joxe nee na li tax ñu barricade euh, tëj Ousmane Sonko biir këram parce que Ousmane Sonko bi muy jógee Ziguinchor Casamance di ñëw fii à Dakar même avant son procès dafa def lu ñuy wax appel à l'insurrection ci yoon bi am na ay nit yu bëree bëri yoo xam ni faatu nañ euh, moom nag nee na fi ko teg ci wàllum base juridique mooy maintien de l'ordre nee na maintien de l'ordre moo tax Ousmane Sonko këram nangu ay téléphone nangu ordinateur am ba mënatul communiquer ak kenn. waaw moom moom laa la waxoon sànq mhm. nii nee naa la bu fekkee ni y' a pas de base juridique bu nga xamante ni fenn foo xamante ni justifié ni na euh, tey jii nii ñu war a ñëw téye wala barricade këru jàmbur amul benn base juridique amuñu droit pour def ko comme euh, toll nii Ah, déclaration bu nga wax noonu wala sortie wu ministre de de. de la justice de la justice bu nga wax noonu. d'accord nga si maintien de l'ordre euh, pas rek la ko def si benn émission wala mhm. effectivement pas d'accord ma si. Mhm. mais euh, émission boobu ma suivre ma suivre ma ko woon. Mhm. moo tax mënu ma si ñëw ñun moom lenn la ñuy yàgg a demee mooy tant que amuñu tous les éléments muy les tenants et les aboutissants mënuñu si ñëw cause trop lu ñuy wax rek mooy principe bi. principe bi lu mu wax moom mooy lenn. nous sommes dans un pays de droit bu nga xamante ni être humain bu nekk am nga cette question de mobilité là da nga ko am maanaam da nga am cette liberté de circulation bu ñu demee nag ba enfreindre liberté boobu noonu soit ñooy ñëw wala soigner sa sa àq ak wala mu am lenn loo xamante ne moom moo war a justifier loolu maanaam mu nekk ay base légale yu nga xamante ne mooy permettre tey jii ni ñu war a téye nit fenn te loolu noonu comme nu ma ko waxee sànq mm-hmm. tant que éléments yooyu noonu bu nañ ko suivre ci kanam ni bu ñu demee avec nos membres. donc mhm. xool ko xoolaat ko bu ñu demee nag gis ni ah le ministre de l' euh, de l' intérieur wala ministre de la justice lu ñu wax ah, tegul si ak ak yéen comme ni ñu ko faral di defee nañ génne benn communiqué te nañ alerter ñu ñu war a alerter. dénoncer je rappelle que mhm. aussi les Nations Unies comme ni ñuy def ñoom tamit. bu ñu defee say monitoring yi ñuy def comme événement yi passé moo tax ñoom li génn ay communiqué d' abord génn nañ benn communiqué pour wax ni que woote à l' apaisement beneen bi moom mooy fu ñu waxee ni nañu ñëw wax état du Sénégal pour mu def ay enquêtes yooyu noonu bu ñu def il travaille en étroite collaboration ak lii bi ay kuréel yu nga xam ne ñooñu fi donc kuréel yooyu noonu muy ak ñeneen ak ñeneen ñooñu si donc foofu noonu moom mooy action yu nga xamante ne mën nañ ko def nekkul rek ay communi communiqué dañuy def mooy suñu mission de veille et d' alerte déedéet am na yoo xamante ni xam nañu ni suñu loxo. eggul foofu noonu dañ koy ñëw wax waa Nations Unies ñoom ñu ñëw def li war a def. d' accord euh, naka nga gisee aadama euh, sénégalais yi nga xam ne dañ doon saccagé euh, yi nekk euh, Milan ak New York ba gis nga ni sax euh, dañu tëjoon consulat yi yi nga xam ne ñoo nekk euh, bitim réew yu Sénégal yi même bu fekkente ni actuellement tàmbaliwaat nañ liggéey bi mais acte bi yow naka nga ko gisee ay sénégalais dem di yàq seen consulat. waaw loolu moom teguñu ko ci dëgg teguñu ko ci yoon. ñu ko si dëgg teguñu ko si yoon d'autant plus que consulat yooyu noonu nekkul consulat wu telle personne wala telle partie consulat yooyu dañ ko teg pour ñoom te mm-hmm. chaque fois boo leen doon seetlu suñu sorti dañu doon wax ni ces consulats wala ces ces ambassadeurs la nañ ñëw jege lii di sénégalais yu nekk foofu noonu jege leen ñëw war a ñëw seetu euh, seen jafe-jafe ñëw appuyer leen bu ñu gisee ni que nag chaque fois bu ñu doon def ay sorti dañu doon wax ni ñoom seen présence dafa def mais dañ leen di jox atu bu nga xamante ne dañu wax ni seen liggéey lii moo tax mu des parce que matériaux yu ñu war a liggéey dañ ko saccagé je pense que Sénégal nekk na benn dëkk boo xamante ne bu mature bu miir te joxe nañ exemple en 2011 2012 waxoon nañ 2011 dëkk bi dafay tàkk nan la mujjee la population dafa génn avec maturité ñëw voté fal ku mu war a fal donc maturité boobu noonu nga xamante ne ñëpp loolu la ñu nawee nañu nañu bañ a briser glace boobu noonu nañu ñëw continuer ak maturité boobu noonu mën nañ manifester autrement te chaque fois diaspora bu ñu doon manifester dañuy sortir massivement manifester pacifiquement mm. te nu ñu manifester ñëpp di leen si naw mais dañu ñëw rek jékki-jékki rek yàq loolu ma comme nuñ ko defee fii nii maanaam moom mooy euh, amphithéâtre yu nga xamante dañ ko lakk jaar nañ université ñu mag jaar nañ université ak ñeneen ak ñeneen mun nañ grève mais suñu woon ñu ñëw di taal suñu amphithéâtre c'est une première lakk ciblé ay këru nit di ko lakk ak yeneen yeneen ak ñu nga xamante ne ñooy ñëw yor ay armes naan dañuy tirer sur la population te bokkuñu ci force de défense et de sécurité yooyu yëpp daal comme ni ñu wax nañ ci def ay enquêtes yu nga xamante ni yu leer lay doon. Mhm. ñëw teg daan ñu nga xam ne war nañ leen teg daan. Hmm. waaye nag bu mu doon ay calmants yu nga xamante ni wax nañ ñoo lu procureur tijji na benn information après jeex na déedéet. Hmm. juste une ni rek fan ngeen toll ci xeex bi ngeen doon xeex immigration clandestine est-ce que xale yi wàññi nañ dem bi wala ba léegi euh, phénomène baa ngi fi. phénomène bi moom chaque fois moo ñu fi. Hmm. Euh, nan nga koy saytoo moom mooy euh, les passeurs entre guillemets ñoom ils sont toujours en avant. boo fàttee yoon bii nii ñoom ñëwul beneen fan yee passé rek yéen a doon gis ay vidéo yu nga xamante ne mooy ñu war a dem États-Unis ñoo wàcc soit Brésil jël euh, yoon boobu noonu dox ko bu ñu doxee jaar noonu Mexique Nicaragua jaar ba dugg États-Unis lu weesu lool noonu tamit <laughs> lii di Europe tamit ba léegi nee nit ñi ñooñ ciy jaar ci yoon bi hmm. donc pour dire que ce phénomène migratoire moom mooy fi ba léegi chaque fois leen rek moo koy andi mooy politique de jeunesse du fi am wax ñu ne baaxul waaye nag war nañ ko xool xoolaat ko càmbaraat ko wax nañ ni que ligne de direction de l'emploi war na xoolaat politique am bu baax te chaque fois même exemple la ñuy joxe moom mooy ndaw bu nekkee yow feebar yóbbu la hôpital ku la yóbbu hôpital nekkul moom la ñuy consulter yow la ñu war a consulter mais malheureusement les jeunes nga xamante ni ñoom ñoo ëpp ci Sénégal kenn du leen consulter kenn du leen déglu kenn du ñëw andi seen saafara moo tax bu ñu gisul benn euh, exemple wala gisuñu. Euh, dara lu nga xamante ni daal espoir lu leen téye fii nii lu ñuy def mooy migré que ce mu nekk de manière régulière comme irrégulière muy ay enquêtes yoo xamante ni IFAN defoon na koon ak benn cabinet américain en 2017 donc yooyu noonu c'est toujours d'actualité ou même pire parce que chaque année y a beaucoup de jeunes yu nga xamante ni terme nañ seen étude bu ñu paree lan la ñuy def toog rek ci ba jaaxle yi waxuma laal ñu nga xamante ni amuñu jàng boobu noonu donc loolu noonu daal mun nañu wax ni Sénégal war na ci bàyyiwaat xel encore une fois di bàyyi tamit encore une fois lu ñu woowee calmant yi ñëw di woote ay forum yoo xamante ne de l'emploi nga dajale des milliers de jeunes yu ñëw amuñu espoir nga jël seen seen après du mujjee fenn da nga leen ñu gën a sax découragé loo gën a leen poussé sax pour ñu migrer ji vers le nord encore une fois il faut que Sénégal bàyyi xel si loolu fenn rek laay terminer mhm. mooy euh, jox cër ndaw yi weesuwul tey nga am ay kuréel yu nga xamante ne du ñun ñeneen ñu nga xamante ñoom ñooy jeunes yi te jeune comme charte africaine lu ñu ko waxee c'est quelqu'un qui est âgé de quinze à trente cinq ans mm. kuréel yooyu noonu nekk fi nekk ci entité ndaw yi mosoo leen dégg benn ndaw faatu nañu wax ci dara te buñ la tegee benn poste bu nga mm. xamante ni sa dignité la war a may euh, boo demee ba dépassé ko wala nga dem ba nga xamante ni sa sa sa mandat jeex na nga rendre la chose nga sorti dignement comme ñoom la ñuy waxee président na ñëw bañ a def troisième mandat ñooñu tamit seen mandat jeex na depuis deux mille dix conseil national de la jeunesse war na ñëw rendre compte ñëw ne ah jeexal nañ depuis deux mille dix neuf jeexal nañu ne ñu nekk ci leneen mais malheureusement ba léegi nii y' a pas d' élection y' a rien du tout te kenn du leen dégg ci dara. voilà merci beaucoup Adama Mbengue maa ngi lay remercier bu baax ci disponibilité bi ak tontu bi nga tontu suñuy laaj. yéen la ñuy di rafetlu seen liggéey merci beaucoup Adama Mbengue ñu ngi koy remercier moom moo nekk président bu ONG Action pour les droits humains et l'amitié ñu ngi koy remercier bu baax a baax.